asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 28 septembre 2020 ñëw ak yéen cëg li kaay yi moo xam Leewtoo point net la moo xam Leewtoo TV la wala Lutte TV wala sunu lamb fu ca nekk rek ci yëg kaay yooyu Balla Gaye numéro 2 moo fa ngar daaju di fa wax bu ñu demee ca Leewtoo TV nag fa la nu koy fekk ak vidéo Balla daal la mu xamle lenn la ay dëggam daal la wax jàpp na diggante ma ki nga xam ne nii daal moo di ba Gris Bordeaux Balla na man day encaissé gu ma 100 te itam taxul ma nekk di wax nee na Gris nag moom encaissé def na ko te tërewu ko mu ngay wax encadrement ba mu am ñu di ko teg ci aw yoon di ko xelal ne xëy na loolu moo tax ba moom mu mën a am loolu jàpp na tamit ne moom Balla Gaye ba tey foofa ca Leewtoo TV wala sunu lamb ak Lutte TV la mu fa xam ne daal ne na li am ba des ñi nga xam ne ñoo di mbër yi moom Balla ne na ñemewuñ ko tey suba waxi noppi ñu ne ko déet Balla ne maa ko wax ñoom ñëpp ku ma ci ñeme amu ci ne man bëri naa fi ak mbër pourtant mbër mooma doon bëreel promoteur ba moom la faral te tërul damaa lekk xaas ba bëre ak moom ne na kon nag ñoom lu tax maanaam ñu di ma daw Balla Gaye numéro 2 daal moo nar daa joo yëglikaay yi dal fa bu baax a baax a baax ci kaw mbër yi la mu leen xamal daal ne moom ñeme daal defuñu ko ko ñu ne déet ne waay ka nga xam ne moo koy re nag di Aziz Ndiaye moom itam wax na Aziz nag wax na ci Leewtoo TV la mu xam ne daal ne na li am ba des daal seen diggante ak ki nga xam ne moo di Gaston Mbengue ne na waxtaan nañ ba déggoo ci accord waaye ne na tamit maanaam mbiree tamit loo gis Aziz ne na daal am na ab yemukaay ndax nag ku dem ba xamatoo fa nga jëm moom da ngay taxaw rek delluwaat ginnaaw nee nag bu ñu demee ba ci kanam moom te dara leerul ne na abu keroogee moom des na wut plan B ndax nag kii di Balla tëdd Azida jàpp ne ñi ko bëgg a bëreeloo bëri na promoteurs yi ko soxla bëri na te itam ay adversaire am ñu ngi ne gàñ ci lamb ji kon daal jàpp na ne moom intérêt Gaston dina ko sàmm mooy ay waxam ñu ne ko Aziz ndax yow buñ la xëyoon tey jox la seen seen la jiite ko Aziz ne asbunallah maanaam daal da ko daa mel ni sax wax ja da koo tiital maanaam kon moom daal jàpp na ne soxlawul poste tey suba waxi noppi loolu mooy waxi Aziz Ndiaye wax ja nag mu nga fa nga xam ne moo di ca Leewtoo làmb tey kan fay fekk mooy ka a joxe CNG ba muy mataar ba moom daal dafa mel ni équipe bii di ñëw daal loo ci mën a dégg daal ay régal yu bees mu nga leen koy xelal wala boog mu di leen koy wax maanaam daal jàpp na ne mission ba ñu war a amee daal bokk na ci mission wu fédération loolu mooy wax ki nga xam ne moo di mataar ba yemu ca am na koo xam ne tamit dalaloon na ko muy Lamine Jong ñu naan ko soo technique mataar ba daal dalal na ko ci ab la moo ne daal nee na na ko faw faw rek dana am yëglikaay bi di suñu làmb xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki doon Gaston Mbengue nag moom mënuy wax ci digganteem ak Balla Gaye ak Gris Bordeaux daa mel am na benn combat boo xam ne daal daa mel fi mu nekk ni daal position ba mu taxawee ngir jekku ko tëgg ko baax na yëglikaay bi di suñu làmb xëy wax nu ko muy diggante Diène Kaïré bu sumbu jun ak Modou Anta bu ci es yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko ñeneen ñoo xam ne nii moom seeni victoire ak seeni défaite ci la yëglikaay bi ñëw mu yëmbal mbooloo yëglikaay bi daal nee na trois victoire la ñu def trois défaite mu mel ni nag seen yëf moom saful suukar saful xorom maanaam daal yéeguñu wàccuñu fa ñu taxaw daal lanu taxaw sunu làmb xëy ñëw tey wax nu ko mel ni ki nag am na fa ay xale yoo xam ne jukki na leen bokk na ci rëm rëm moom yëgli kay na abraham moom honoré na ko maanaam mel ni sagal na boppam bu baax a baax ka nga xam ne nag moo di caatu yëmbal moom dafa gagné daal di per mbës tamit marqué na ay points yéeri numéro 2 zarko 2 ak bàyyi njaga ñoom ay absent daal la def maanaam kenn gisu leen ñu bëre wàcc ñu ca géew ba boo yëmbal moom gagné na waaye dafa ñàkkaat ndax recours bañ ko dugaloon ci diggante mag ka nga xam ne ni mooy xeeru ngor numéro 2 yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko Matar Mbaye nag muy président la moo xam ne daal ne a jubbantiwaat a a la loolu la Matar Mbaye xamle ci yëglikaay ba nga xam ne nii moom moo di sunu làmb ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi suñu làmb am na xale boo xam ne nii moom jàppal Matar ba jàpp ne daal moom ñu ngi koy bàyyi xeet ci làmb te itam war naa mën a nekk ëllëg relève ci wàllum promoteur muy ga nga xam ne moo du jamaïcain yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko ca fa nga xam ne nii moom moo di ca tuus ya mu mel ni kii loolu daal yëglikaay bi xëy ñëw tey wax nu lu mel ni ki noonu mel ni ki nag leneen loo xam ne nii yëglikaay ba ñëw na ca muy ñi nga xam ne nag ñooy wàllu simple ba record ñëw na wax ci ak li nga xam ne nii moo di sunu làmb jàppal li am ba des daal bu ñu demee ci record moom réunion lañ doon def dem fa nga xam ne mooy ci adresse Senghor waaye nag li am ba seen seeba moom wala ña ko jiite muy Alioune Sarr ak leen di dànkaafu de ñoom ñëpp nag dim daje woon nañu moo xam euh, amateur yi la moo xam promoteur yi ak léem loo xam ne daal composé na wàllum simple ñoom daje woon nañu dem bëgg nag ab doxalin boo xam ne bu yees la kon xanaa ci ñi nga xam ne nii ñoo fi war a ñëw waaye yàgg maar daal li am ba des tey moom happy birthday to you laay wax ka nga xam ne nii nag mooy sama xarit di sama soppe di sama mag di meeru Lat Mbengue ma Macoumba Diouf tey vint 28 septembre tey nag lay fête anniversaire am ma naan ko joyeux anniversaire olof a ko wax xeru tëb sa da cay daru te ku la safooti faale ko te docteur nag sama xarit la sama soppe la kon docteur dundal lu baree bare bari am jàmm ndombo yi gën a yokk liggéey bi gën a barkeel ñu lay ñaanal jàmm joj bu baax a baax di ko ñaanal bépp doomu aadama yàgg maar asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki internetu Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm ko saaku ci yéen waaw di la wax ne namoon nañ leen nag euh, par rapport ak revue bi parce que defe naa ne vendredi la fi mujjee woon ba tey di leen di ah ñu nekkoon ci weekend ah weekend bi nag bëri na lu fi jaar yàgg maar yaakaar naa ne gis ngeen fi ay interview gis ngeen fi lu bare bare bari daal mën nañ cee jëkkee xam nga avant sax vendredi su ma jumulee takku sumbalu bàcci lii ak Balla Gaye 2 bët setaat vendredi bi ngeen gisaat ñu ak Balla Gaye numéro 2 ci Olympique Club fu mu doon entraîné amoon déclaration bu mu bëggoon def jëmale ci combat ak Gris Bordeaux ngeen seetaan déclaration bi dégg ngeen lim ci wax dégg ngeen tamit li nga xam ne nii moom la ci ensemble de Aziz Ndiaye wax loolu lépp mu ngi ci xam ne moo ci Leewtoo TV ak ci Leewtoo point net bu ne nii moom mooy kera ba nga xam ne fekk nañ ko Olympique Club ci ak entraîneur muy gii ak ñi koy yore ñëpp di ko entraîné Balla mu ànd ak ak magam Baboy wax na ci digganteem ak Gris leeral na ne moom jotul xaalis waaye nag joxe na accord kàddoom joxe na ko pour bëreel Gaston Mbengue nee nag am na ci loo xam ne moom du ko topp agent moo ah, moom mu dox ko donte nag du tere di ngeen te waxtaan mais boo ca waxee ba pare nag nga ba des moom muy loolu moom daal bu nee waaw ak Aziz waaw la bu nee déet ak Aziz déet la loolu la wax yemu ca it wax na ni mbër yi dañ koo ragal waaw nee na mbër yi dañ koo ragal ma ne ko Balla lool foo ko teg mu ne waaw parce que ñoom ñëpp ku ci ne xam na ne da nga koo ragal ma ne ko pourtant am na ñu la daan ñi la daan nag parce que Balla Eumeu Sène daan na ko Issa Pouye daan na ko te Bombardier daan na ko te Balla nee na mbër yi dañ koo ragal ah loolu nag ay waxam la waaye man damay jàpp ne xëy na loolu lépp Balla ku ne xam na ko ci provoqué moom provocateur la woon ci wàllum làmb maanaam ay kàddam moom des fois bu ñëwee day dal nga wax jooju nag mu wax dama naan moom mi ko wax moom laa ngaa sax xëy na itam xam na li tax mu wax ko waaw moom mi ko wax xam na fu mu ko teg wala xam na li tax mu wax ko waaye la ba des daal interview ba neex na nekk na mbër moo xam ne tamit day tontu question moom boo ko laaj day tontu. waaw loolu moom am na ndax këra loo ko laaj tontu na ci muy te interview sax affaire bi sax des na ndax daf ci am la moom lañ leen dagg rek comme ay parti jox leen ko mais li ci des di ngeen ko seetaanaat Aziz Ndiaye tamit yàlla def ci occasion boobu ñu amaale woon ko laaj ko ci gaa combat bi moom itam jàpp na ne Gaston lañ waxal te du wax ñaari wax benn kàddu la yor benn nopp la yor te Gaston la waxal moom la jox kàddu moom la jox noppam nee nag waaye jàpp na ne am na fu wax di yem maanaam ab ab parce que gisoon nañ lopp su bind ultimatum ñoo ne Aziz ko waxam waxu ko Aziz ne moo ko wax loolu la waxaat ci suñu ay yaa ngi dégg ak Lutte TV xam le na daal moom ultimatum bi mooy am na àpp bi fu muy yem foo xam ne bu ñu fa yeggee nag jàpp na ne Balla bu keroogee day uti leneen parce que li tax mooy jàpp na ne Gaston Mbengue wala boog jàpp na ni Balla Gaye bëri na promoteur yu ko bëgg a tëgg bëri na promoteur yu soxla kombaam te itam nekkul promoteur bi nga xam ne ko jënde ak benn intérêt waaye nag terewul moom moo gasoo lañ waxante waxante nañ ba ba muy gis ne moom li nga xam ne nii moom mooy le ministre Ba mi nga xam ne nii daal daa mel ni ah ay règle waa ay règle yu bees daal ci wàllum ci CNC bi war a ñëw xëy na kon ñu jëm ci wàllum liggéey pour jëm ci mbirum fédération wala mission ba loolu la war a doon waaw loolu nag moom defe naa ne moom mii kilifa gi su ko xalaatee wala mu génne ko defe naa ne loolu waras a jublu ndax boobu ba tey ñu ngi koy wax fédération fédération kon defe naa kuréel gii war a yore làmb war nañ ci mën a liggéey ba nga xam ne bu ñu defee fédération dina am njariñ te mooy li ma ci doon wax rek fédération moom lu mu ci mën a xew mooy lu ñuy waajal la lu simple comme du lu simple ko ba kenn bañ caa fot wala kenn bañ caa am tàngoor wu lay gaañ waaw loolu daf ci am solo trop trop ba tey Matar ba soo technique gis nañ leen mu nekk nag joxoon na soo technique audience soo technique nag moom mooy man moom mooy ki nga xam ne ni mooy Lamine Diong moom nag jiite CNC la doon wax moom lay laaj waaye premier ministre bi dalal na ko digg ko tamit ay changement dina am changement nag moom defe naa moom la waaye lamb yëpp di xaar kon na nekk li nga xam ne bu amee changement yooyu yàlla na jik a ak combat boo xam ne nañ presque daal ah fisale na ko muy diggante Diène Kaïré doomu Boy Kaïré bu Soumbédioune ak Modou Anta <laughs> Baye Fallou Thiès bi muy combat boo xam ne itam yàggees na koy wax am na promoteur yu ko bëggoon waaye defe naa ne itam bu amee dina doon combat bu neex a neex ndax yaakaar naa tey ci làmb boo leen xoolee ci palmarès ak ci taxawaay bu ñu bëree da nga naan Modou Anta mooy may Diène kayre sens loolu tam nag mooy noonu la làmb yàgg bindoo ndax wax dëgg yàlla Modou Anta ku gis parcours bi mu fi mu jaar ak mbër yi mu bëreel ah defe naa ne kon defe naa tey bu jén demee war a bëri ak moom itam dañ naan mu ngi koy may sens waaye jén itam dafay mérito sens boobu parce que xale la boo xam ne macha allah mu ngi së mu ngi seminer maanaam mu ngi dox ndànk-ndànk di ñëw muy combat boo xam ne daal yàlla na am ci promoteur bi muy nekk wërsëgam tudd nañ ci nag Gaston Mbengue ba ne presque fisale na ko kon yàlla na loolu nekk dëgg Euh, trois victoire trois défaite yëmbal mbooloo mu mel ni yëmbal mbooloo itam ah seeni mbir daal saful yàpp saful jën waaw te mu ñu cëng dikk ñu mbay laar comme ni ko olof di wax maanaam daal trois victoire trois défaite six combat lañ mu mel ni kon noonu la demee résultat yi nag taxu koo kii waaye nag ah liggéeyaat rek comme na ko seen président waxe bu ñu liggéeyee gën a samp affaire yi xëy na mbir yi dina gën a baax parce tamit affaire yi moom loo ba Euh, waa lambi simple yi dem ñu doon daje ca Adrien Senghor ab réunion muy mbëri muy promoteur ya ak amateur ya ak ñu ci bëri daal ñi nga xam ne seq nañ lamb simple mel nag ñoom ñu ngay tegi dànkaaf wala boog ñu ngay xamle daal ñoom li ñu bëgg wala la nga xam ne nii daal ah moom la ñu war a def loolu record ñëwal nañ ci ci lu yaatoo yaat mel ni kon foofa itam ku fa dem da nga gis waxtaan wu mel ni ki noonu foofu fa nga xam ne mooy ci journal record mel ni loolu lépp li ko waral daal mooy lamb la ñu bëgg rek mu jëm kanam avancé dem ci kanama kanam loolu defe naa ne lu ñuy bañ te lu war a mën a am la waaw yéen ñëpp jàmm di wax nag ne tey revue bi moom kenn laa koy jagleel muy ma kumba Diouf parce que li tax ma ko koy jagleel mooy ah su mag la su xarit la. li ñu boole lenn la woon yàlla dafa def ñuy liggéey ci làmb nekk ci comme ay reporter ngi dégg mu di ñu dégg di doomu Saalum te ku ne Saalum ne làmb ku ne séréer ne làmb ba tax mu fonk ñu ci loolu wax dëgg yàlla lu muy def ci wàllum làmb rek boole ñu ci yaa ngi dégg lu muy def rek dina woo baaba kër mu ñëw wala mu woo Lamine mu ñëw mu jàpp ñu jàpp boo xam ne jàpp bu rafet la moo tax tey buy souhaité buy buy fêté anniversaire am tombeeg le 28 septembre 2020 bi duñu ñu mën a def lu dul rek ne ko happy birthday to you docteur Macoumba Diouf di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér gi yaram di ko ñaanal yàlla tamit ndomb tànkam yi gën a yokk parce que nit ku baax la nit ko accessible la bokkul ci kilifa yooyu nga xam ne wax dëgg yàlla danga nga koy woo di am problème di ko jot ak wala nga soxla ko mu naan la audience yi noonu wax dëgg yàlla loolu xamuñu ko si moom te gis nañ dem nañ fi muy liggéeyee fekk ko ay bureau fa xam ne mooy jam ñaajo fekk ko dëkkam lat ménge fekk ko fi mu dëkk nii ci Dakar

Abdoulaye Mbacke doon na wax ne géwél amul ku la defal lu baax nga wax ko te dama ko gis muy jëf-jëf ju normal ju baax joo xam ne lu ma teg suma bët bii la kon loolu damay am droit di ko wax mu nekk nit koo xam ne tamit ça fait plaisir plaisir la ci man wax dëgg yàlla ñuy am relation yoo xam ne nii yu am am solo la relation yi dem ba yegg ci sama biir famille sama papa sama soxna ak samay waa kër yëpp ñuy déggante kon defe naa kooku considéré na ma jox na ma cër cër boobu nag laay ñaan yàlla yàlla na ko yàlla sam di nuyu soxnaam itam moom nga xam ne lépp rafetal na ko Louis Senghor ndax xay na tey am na xam ne bu ñu taxawoon ah jege borom këram du yomb waaye macha allah moom mu nekk jigéen ju ubbeeku ma koy nuyu madame Senghor borom Senghor production di ko ñaanal jàmm di ñaan yàlla njaboot gi ñu am yëpp ak njaboot gi ñu seq yëpp yaa ngi dégg yàlla def ci barke ay doomu doomu docteur yëpp nag ñëpp ñëpp muy góor di jigéen maa leen di ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal bépp doomu aadama yoo xam ne daal tey docteur Macoumba Diouf meru lat ménge ah xaritu Babacar yàlla na yàlla def jàmm directeur horticulture waaw noonu la demee woon di ñaan ñëpp jàmm di nuyu ñëpp di balu ñëpp ak di wax na rek lu ñu fi wax rek te jar jug jagul jàpp leen suñu njuumte la mais lu fi jag rek yàlla ñu dimbali ba mu réussir des fois tamit ay décès am ci machines yeeg yu mel ni ki ñooñu tamit ñu ngi leen ciy jégalu parce que bu ñu sañoon lu ñu leen di jox rek day nekk vrai nekk qualité di ñaan jàmm Sénégal màggal gi yàlla nañ ci dugg bismillahi rahmaani rahim ñibbiseeg alhamdulilahi rabbil alamin jóge ci dem ci gàmm ji passé ko noonu nawet bi li ci ñor ak jàmm yàlla nañ ko góob lekk ko te muurloo ko barke nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam